mbokki Sénégal asalaamaaleykum euh, ñoo ngi dellusi ci kàddu yu gàtt am nañu sekk ak yéen ci waxtaan te muy waxtaan goo xam ne gu war la li tax mu war ñaar la lu ci njëkk mooy dañoo nekk ci mbir moo xam ne ñépp xam nañ ni mbirum askan wi yépp la dossier bi nga xam ne lëmbee na Sénégal depuis ñaari at ñëpp xam nañ ni dossier Sénégal yëpp la li ko gën a firndeel mooy buñ ci defee convocation bu gën a ndaw ci convocation daanaka Macky Sall dina mobiliser armée nationale moo ne jaru ko woon ndax buñ ma convoqué it damay génn sama kër dem wuyu ji déglu ñibbisiwaat ndax li ma leen yàgg wax rek bu dee dossier bi kese kese kese kese gisuma kan moo ci mën a condamner Ousmane Sonko rawatina mu naan da koy tëj ndax defuñu waxuñu yéeguñu ñaareel bi firnde ni dossier bi dossier wu ñëpp la mooy gis-gis bi ci nit ñi am ak li ci laxasoo yépp ci ay yaakaar moo tax saa su nekk day day jaadu ñu dellu si waxtaanata nag yéen fuñ ci toll rek ñu ne leen fii lañ ci toll xam ngeen ni ci wàllu yoon dañ naan dossier boo xam ne dafa nekk ci loxo instruction nit ñi waruñ cee àddu waaye dossier bii nag daañ ci àddu donte duñu xóotal duñu sori ci biir waaye dañu am obligation wareef la ci ñun ñuy waxtaan ak askan wi di leen wax fi dossier bi toll ak lu ci am ñu wax leen ko ndax loo xam ne mën na yëngal réew dafay jaadu waa réew mi di xam nu mu demee ñu dal nag di leen gërëm ndax gis nañu saa suñ ñu convoqué sax dafa mel ni nit ñi dootuñu lekk dootuñu naan lañuy jot ci ay message kenn xamul nu mu toll saa su ne dañuy dalal seen xel neneen convocation dañuy dem wuyu ji bu soobee yàlla dellu suñu kër ci jàmm tey nag wuyu ji woon nañu ci li ñu tuddee confrontation mooy nee nañu ki jiiñ ak ki ñu jiiñ comme kenn ku nekk am na loo wax il faut ki jiite enquête bi doyen des juges dajal leen déglu leen kenn ku ne mën na la yaa fi waxoon lii yow est-ce que nangu nga ko ñi seen xam-xam màcc ci mbirum yoon yépp jàpp ni lii warut warutoon ndax li ni dossier bi windoo aajow ko waaye bu ko waroon bu waroon am sax am na lu ko waroon jiitu ndax yéen ñëpp xam ngeen bari na ñoo xam ne tudd nañ leen ci dossier bi te ñun ñu laaj ni dañ leen war a déglu te ba tey jiit doyen des juges tëdd fi mu tëdd dégloogu leen kon loola waroon jiitu mu déglu ñooñu ba pare mu bari ñoo xam ne walla ñépp sax ci senegal jàpp nañ ni suñuy def lii bëgg dëgg ak àtte taxul waaye dañ doon ut luy toroxal Ousmane sonk ñëw teg ab xale bu ndaw mu naan def na ma lii jaar na ma fii nangam nangam loolu lañ ci doon jublu waaye ak lu ci munti am rek woo nañ ñu dem nañu uyu may leeral nag ay mbir ci lu gàtt ndax dégg nañu waxkatu lu dëgg boobu nga xam ne ci loolu la dëkk ñépp xam ko ne dañoo dakkaloon euh, ndaje ma ndax sama diggante ak aji saar mi muy jiiñ dañoo amoon xuloo bu fa am wala jàppante ba tax juge bi dakkal daje bi loolu ngeen jéggal ma ci kàddu gi waaye ay kàcc la waaye nag kooku moom luy jóge ci moom rek kàcc la ndax léegi rek may ñëw dégg naa gis naa vidéo bu avocat wu Adji Sarr ci boppam weddi loolu du ma wax nag samay avocat benn interruption moo fa amoon te li ko waral mooy greffier yi dem na di bind ba benn instant fichier bi mu doon liggéeyee ci ordinateur bi réer ci ordinateur bi mu koy wër wër wër gisu ko ñu nekkoon nañu interrompre ba ñu jot a récupérer fichier Word boobu pour mun a continuer waaye jàppante amu fa kii nga xam ne moom a jiiñ kuy wax waxal yàlla rek ñëw na correct wax wax ju correct doonte avocat moom ko doon essayer ruux pour mu wax xabaabal wala wax leneen lu mu warul wax waaye defu ko wax ju correct la fa wax manqué wu fa kenn respect à commencer par man mii may profiloo rek di wax ay mbokkam lii ma gis tey seen doom dugal nañ ko ci lu ko ëpp doole xamul ci lu mu ne ku xool xar kanam ak bëtam sax di nga xam ne kii nekkatu fi te ay pression la ñuy def ci kawam wala sax ay menaces wala yeneen yu mel noonu amaana sax ragal na ci du pour dundam moo tax ay mbokkam dañ ko jëli ku jur doom doo ko sànni bàyyi ko ak ay loxo jàmbur ay politiciens di ko manipuler ak ay nit yoon yoo xam ne jàpp nañ dañoo war a fayu bàyyi seen doom seen kër di ko manipuler ba tey jii mu nekk li mu nekk nii ba ci ñi nga xam ne ñooy défendre àq ak yelleef de manière générale waaye ñiy défendre àq ak yelleef ci jigéen ñi ndax xale bi ma gis nii sànq nañ ko te xamatul fu mu nekk leer na ma ni ku ko mënoon génn ci lii tey tey tey mu génn ci kon loolu amu fa wax dëgg yàlla journée bi yépp dégguma fa benn mot bu déplacé boo xam ne wax na ko fa moo xam lu jëm ci man wala lu jëm ci ay avocat wala lu jëm ci juge wala lu jëm ci procureur wax nañu tamit nii dañoo bañoon tontu laaj yi loolu amut ndax lu mel nii ñeenti <coughs> ñeenti kilifa ci biir ñoo am sañ-sañu laaj bi ci ëpp solo mooy doyen des juges ndax moom moo yor enquête bi mooy convoqué bu paree jox procureur mu laaj ki ko fa toogal di substitut procureur kooku bu pare daa jox avocat partie civile yi ñu laaj ñu doog a jox avocat défense ñu laaj ki nga xam ne nag mooy ndeyu mbill gi muy doyen des juges lam fa laaj yépp tontu naa ko donte amoon naa sañ-sañ bañ koo tontu ni ma ko defee ak ñeneen ndax damay fàttali ni moom laata ñu koy jox dossier bi dafa jëloon position daadi bind ci benn face page Facebook am benn texte boo xam ne ab mbokkam bu nekk France bokk APR moo ko bindoon di ma attaqué ba tuumaal ma ci mbir mi xam nga juge dafa am obligation de réserve juge warul waxee n'importe comment rawati nag dossier boo xam ne yow yaa nga Ziguinchor di fa juge d'instruction dossier bi tàkk na réew mi di wax nga dem di publier sa page Facebook loo xam ne day chargé Ousmane Sonko est-ce que kooku xel mun naa nangu tey te li may wax nii waxuma ko par rapport ak jëmm moom ndax li ma dégg ci moom yépp mooy mus dafa mus góor góorlu nekk juge boo xam ne day góor góorgóorlu ci jubal waaye est-ce que dossier bu mel ni xel mun naa nangu ñu teg ko ci loxo koo xam ne laata dossier bi di ñëw ci loxoom moom àddu woon na ci ba pare ba condamné Ousmane Sonko. kon mënoon naa sëkkundu si foofu ne kii duma ko tontu waaye tontu naa ko moom laaj yi mu laaj yëpp tontu naa ko kon su ñu nee tontuwul laaja loolu amut mu des procureur procureur li ma ko waxoon bële passé laa ko wax ndax procureur administration la ki fa toogoon tey du moom du jëmmam xaw ma ko jàpp naa ni magistrat bu baax la jàpp naa ni kuy def liggéeyam la. waaye nag dafa toogal procureur parquet administration nga xam ne c'est impersonnel c'est abstrait administration boobu mu fa toogal nag su ko jiite woon ci jamono jooj di Serigne Bassirou Gueye dafa am ay njomba yu mu def ci dossier bi ci wàllu dossier dañ la ne PV d'enquête bi nga xam ne enquête préliminaire bi mooy njëlbeen bi rek enquête bi ñu confier ko gendarmerie PV boobu gendarmerie def procureur donte moom mooy le maître des poursuites amul amul sañ-sañ ci changer PV boobu waaye PV bi nga xam ne moom la gendarmerie defoon Serigne Bassirou Gueye da koo soppi muy fot bu garaaw garaaw garaaw ci magistrat daat ci jël ay mbir yoo xam ne daf ma doon setal man mu génne ko ci PV bi ba pare dem ut yeneen mbir yoo xam ne daf may daf may essayer tilimal mu yokk ko ci TV bi te newu ci woon kon kooku li mu def dafa garaaw moo tax ma jël di porter ko plainte moom ñaari plainte laa déposé benn bi maa ngi ko déposé cour suprême muy plainte au pénal ñu war ko atte parce que li mu def lu garaaw la ñaareel bi ma déposé ko igage nga xam ne plainte disciplinaire la pour ñu def euh, ñu ñu ñu ubbi euh, euh, une procédure disciplinaire teg ko ci kawam moo tax su ngeen gisee Macky Sall gaawantu nommé ko of nag sama plainte moo tax ma wax leen ko tey xam ngeen ndax lan parce que ñaari plainte yooyu moo déposé bi ca njëkk ci cour suprême pour mu mun a jàll faaw rek ministre de la justice nangu cour suprême day bind ministre de la justice ne ko ah am na magistrat bu ñu tuumal dara waaye mënuñu ko àtte tant que yow joxoo sa autorisation te xam ngeen nii ah man de foogu ma ni Ismaïla Madior Fall su ma ne Ismaïla Madior Fall nag wax naa Macky Sall dina joxe autorisation pour ñu àtte ba Bassirou Gueye kon boobu ñoom mun nañ ko bloqué foofu waaye bi nga xam ne moom laa déposé ci inspection général bi nga xam ne mooy gérer biir euh, euh, lépp li nga xam ne mbirum discipline la mbirum yar ak yarin ak doxalin ci biir magistrature boobu aajowul ñu demander autorisation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 kon kooku duma tontu laajam nee nañu tontuwul avocat aji Adji tontu naa leen li ma leen tontu moo leen arrangé ndax avocat yi ñaar la li wax ji ji yépp ñaar lañu ke ci njëkk di maître kan Abdou Dialy kan dafa ñëw laaj ma lu mu laajee premier laajam dama ko génneel benn article boo xam ne